jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di amaat contentement ak mbégte dellu siwaat sur la TMS TV ci li nga xamante ne tubaarkàlla mooy li xew ci réew mi tubaarkàlla ñu jàpp ne gis nañ ne jamono yi dañoo gis ne ñi ngay roñ bagage yi nga xamante ne moo féetewoo ci wàllu tali bi waaye jegeeg li nga xamante ne mooy bayaal yi nga xam ne espace la yoo xam ne kenn occupé wu ko waaye domaine maritime la tudd defe naa ne nag am na ñu fi exposé ñii seeni oto la ñu fi teg ñii teg fi ay table ñii teg ay mécaniciens yi ne fi waaye dañu seetlu ne démb dañu gis ne que ne maire bi mi ngi wër di jël li nga xam ne mooy bagage yu yàqu yeeg yi nga xam ne kenn kenn utilisé tu ko donc moo tax tey nag ñu wàcc si fii ci terrain bi fas yéene def li nga xamante ne mooy liggéey bu am solo ak ñi nga xamante ne ñoo fi yëngu di fi fortaatu seen wërsëg. sëriñ bi ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay ne démb dañu gis ne dañu ñëw fii waa maire yi jël oto yi nga xam ne moom ngeen fi tegoon waaye mel ne yàq nañ bagage yi nga xam ne seen i jumtukaay lañ. est-ce que ñoom euh, rafetlu ngeen loolu ou loolu ñun duñ ko rafetlu ndax su dee ñoom sax du naa jox euh, feuille waxtu bu nu ko jox du waxtu bi ñaar te soo fekkee ay oto yoo xam du naa gaare di ay oto aftu au moins da ngeen may benn délai boo xam ni kat da ngeen ay sëñ bi kat daf leen dànk mais su la joxee décharge bi nee la c'est dans vingt quatre heures wala quarante mënta nekk parce que oto lu ko taxawal yëkkatiwu ko démb ñëw nañ fi heure boo xam ne heure guddi la mm-hmm. wax na ak ñoom nu bañ benn mooy nu ñu jëlee suñu oto neexunu ñaar jagar jege oto yóbbu ko ba jam ñaajo la xaw ma fan yéen kooku du yoon malgré que ñoom nee nañ euh, cadre de villa mais lépp lu nga kaa war a waxtaanee parce que fii ay nit a fi ne ay xale yi fi daan seen doole ay mécanicien ay defal ko du pëne demuñu sàcc nu defuñ dara danaa dem ut na at seen doole pour ut lu nu am lépp lu ma gën a mooy su dee da fay jëlee ay nit ut da nga foo xam ne da nga naan toog fii mais fu ne fan lañ jëm ak lu ñuy def oto yi nga gis ñu taxaw yëpp seeni i borom du leen fay oto bu ne daanaka dikk na la trente cinq millions nga fay ko ba pare mënatoo dem jaay sa alal def si oto bi nga ñëw gaare ko kon amul lu la neex léegi ñu jël ko yóbbu ko nga war a fayaat war kaa indiwaat te ñoom xam na ne oto yi dinaa nekk en phase de recensement ñoom xam nañ loolu xam na ne oto yi ñu ngi nekk en phase de recensement donc nag waruñoo yóbbu oto yi war nañ mun a waxtaan ak ñun xool nee na kat seen oto yi kat mi ngi fii xool leen foo leen ko bëggee nu tegal leen ko foofu nu xam parce que su ñun amoon na lu ñu gënal du fa gaare oto yi. ñoom délai bi ñu leen jox pour ngeen jóge fii war na toll ci une semaine un mois deux mois. déedéet nee na ñoom euh, immédiat lañ wax de effet immédiat lañ wax. parce que barki démb lañ ko indi ñëw euh, barki fi guddee la sax parce que ñun nga xam ne ñoo responsable parce que garage bi ku xam xam ne am na ay responsable ku mel ne Ahmed Lay di suñu nijaay di suñu lépp responsable la Fallou Diouf mi responsable la Moses responsable la responsable As ak keneen keneen ñoom ñoom ñu koy def xam nañ ñan lañ fa war a fekk ak ñan lañ war a ñan waaw waroon mën a ñëw waxal chef de garage yi waxal ñu ñu fi ne ah xool leen nangam ak nangam ak nangam ak nangam nu xool nu ko doxee daal moo gën a moo gën a rafet mais nu ko defee lépp ñaaw na. te yéen jamono bi ngeen fiy nekk tamit yéen ne mooy maire Yoff. Euh, lundi am ak na moom rendez-vous. ok Ndiaye Diène moom su seetaanee lii am na moom rendez-vous lundi à 10h. parce que amoon lu mu proposé arrangé ko daan waxtaanee. ba neenu ñëw leen nu ko daan fa ñëw lundi à 10h. kon moom war il était au si lii kon nag waroon xam ne amoon na moom rendez-vous à 10h. pour ñëw waxtaan ak moom parce que am na lu ñu proposé bañuñu ko parce que foo nekk di nga fay ay droit parce que ñoom proposé nañu oto yi ne benn bu ne dafay 500 par jour ñu leen xëy na bari na nan xool nu ñu ko waxtaanee mais nag jékki-jékki jël oto yoo xam dafa gaare yenu ko yóbbu ko nga war a fayaat war fayaat plateau mais kenn xamul leen la du yoon day met trop day met trop. donc yéen su mu ne nii ban ban ban taxawaay ngeen war a mën a am pour lii saafaraw Macky Sall ngeen koy jooytu wala adduna ngeen koy jooytu adduna. lan koy joytu parce que Macky Sall xëy na moom si doon mu ngi au courant dana ne booy may leen parce que soxlawul jamono ji pëtëxoo soxlawu ko fi mu toll nii parce que agréé mu fi mu toll nii dal la laaj beneen bi ñu ngi koy jooy suñu njiit muy mbay Amar di président AFTI war na noo mën a au moins gestu xam ne ñii kat suñu ah, suñu ay opérateur la woon ñoo fay ba mu mënatuñu fay gaare oto yi oto yi soo gaaree oto yi si bëri am na yu bëri yoo xam ni problème de rentabilité moo nu gaare leen mais du paan dara léegi oto bu gaaree lu yàgg dina am loo xam dina sikk mais ñoom muy Mbaye Amar war na mën a def intervention xamal leen ñii kat sama opérateur lan oto yi dinaa nekk en phase de recensement woo oto yi ngeen dugal ko maison de casse wala fenn au moins mu mais nag ñun ku amul loo dépanner oto mooy noonu la da fay nangam ak nangam war ko jël wala fayat plateau pour indi oto foo ko jëlee xanaa da ngay jaay sa bopp metti na waaw man la astoli jàmmalaay sant di leen gërëm mais tamit ñi tamit ñoo ngi koy naqarlu quoi parce que tamit ñun ay citoyen lañ ay xale lañ ay jeunes lañ comprendre nga baax jàng suñu métier Sénégal lañ ko jàngee est-ce que comprendre nga baax ñu ko jàngee Sénégal di ko utiliser tamit teg si tamit am na xale yu ndaw yoo xamante ne nangu ñoo jàng ñooñu faaw ñu dem jàngi mbir est boo ñëwee benn jour rek nga ni léegi loolu yëpp li nga defaroon noonu yëpp da ngay ñëw yàq ko si zéro loolu neexul neexul parce que ñii nga gis ni lañ est-ce que comprendre nga baax kenn ku si nekk boo xëyee yaa ngi daw dépense comprendre nga baax yaa ngi def leneen ak leneen leneen kon gouvernement bi dafa war a jàppale citoyen sénégalais yi man moom laa koy joytu parce que tamit même boo ko joytoo àdduna bi it bi moo si war a jiitu est-ce que comprendre nga parce que ay jeunes lañ ay ñu fenn ñu defuñu leneen comprendre bu baax jàng suñu métier di liggéey fii lañ nekk jàmmalaay te fii bañ fii ñëw sax yàlla dafa dogal melul woon nii rafet ba xam ba nit ñi sax soxla ko nii xam nga ku nekk di fër di fër di dem fii ay mbartal la woon xur la woon fii ñoo ko doon sëq fii ñoo ko sëq tey ji ba mu mel nii kon képp ku fi ñëw nii bu bëgg ñu fee jëlee am na noo war a xam ne da ngaa war a ñëw si ay kàddu yu rafet comprendre nga ba ñu si kon garaawul mais nga tëb tëb leen jour rek nga indi ko tey suba gi ngoon rek si guddi gi jël ay bagage jàmbur di yóbbu loolu tamit naa sun nañu waxante dëgg kon mën nañoo jàpp ne am na seen matériel yoo xam ne xaw nañ koo yàq parce que ñoom xàmmeewuñ bu baax ak bu bon bari na matériel yi yàqu bari na matériel yi yow li ngay yóbbu benn benn li ngay oto bi ngay jël di ko yóbbu rek première fois balaa dara xew di yàq parce que lu bon bon bon dina am lu si yàqu parce que taaloo ko dawaloo ko pour teg feneen léegi la koy yëkkati mun na ko blessé est-ce que comprendre nga bu baax rawatina nag ñun ñi nga xamante suñuy bagage dafiy nekk comprendre nga bu baax fii nii bi ñu fiy a ñëw sax ay agresseurs ñoo fi amoon fii bu fi agressé euh, jeexee à grâce mécaniciens yi ñoo tax kon na kon kooku da nga kaa waroon njukkeel mais pas nga koy ñëw di ko éliminer comme noonu noonu parce que tamit xam nga garage moom foo ko fekk muy terminus noo def di nga gis ay jigéen ñoo xam ne dañu fay ñëw pour daan seen doole su comprendre nga di ut jël loo xamante ut loo xamante dañu koy yóbbu seen njaboot mais tamit ñoom it comme ñun ni ñuy naqaree ñoom noonu nu ko raw da leen koy naqaree parce que tey ji boo xëyoon jëlale fi ak yi da ngay ni ak ah, coo jubul xaama dem xool yi leneen ñoom ñuy jigéen fan lañ jëm jéem a daan seen ak dëkk bi nu mu mettee nii ñu ñëw fekk seen i mbaar ñëw rax jaxewoo jëm yóbbu ko noonu ci zéro loolu rafetut ñëpp ay citoyen lañ ñun ay sénégalais lañ te fii bañ fiy ñëw ñun ak jigéen ñoo bokk nekkandoo ba muy nekk xur ñoo fi bokkandoo nekkandoo kon boo fi ñëwee au moins war ngaa mën a ñëw sax ni xaaral ko comme ñuy yàqu ñu fi dara parce que fii la ñuy defee ñaari raaxay fii murit yi bu ñu ñëwee ñun dañuy dañuy dañuy bàyyi naes ñun ñu nekk fi ñu war a nekk kenn duñu fi yàqal comprendre nga bu baax ak fi mën di def fii ak ñaari raaxay tijaane bu ñu ñëwee fii seen i jàng fii la te fii ñëpp ay mobilisé wu yóbbu seen i soutien comprendre nga bu baax kon ñun bokk comprendre bu ñu tëb tëb rek bëgg fay jëlee nit ki si zéro amul sens waaw man la Mama Cissé maanaam bi ma ñëwee ci garage bi yàgg na yàggut waaw man na ma fay ñëw di fortaatu ni rek di jaay pour lu ma yóbbu sama njaboot waaw mais tey ni mel nii rafetul dara dara dara dara ñu ñëw ne instant yi nii ñu xëy si ñëpp kenn liggéeyut ñëpp a ngi toog ñu ñëw fekk ñu yàq bagaas yi yëpp nii loolu rafetul te dañuy daan suñu doole rek waaw luñ ci yàlla jox rek ñu yóbbul suñu njaboot waaw ñu ngi ñaan nag ndimbal ñu ngi ñaan ndimbal maire beeg maire bi daal pour mu dimbali ñu daal taxaw si waaw même buñ ñu fiy jëlee tamit nañ ñu uj fu ñu teg waaw sàcc ñu fenn ñu ñu ngi ñëw di daan suñu doole pour lu ñu yóbbul suñu njaboot dëkk bi neexul dara doxut buñ la jëlee fii nañ la fuñ la teg mais ah. ñëw dindi nit ñi comme ça nii lii rafetul fi di jëlee loo xam ne moom ngeen di yóbbu fii ñuy lu ñuy jundale jàppale seen borom waaw di jàppale suñu borom kër yi ndax dëkk bi dara doxut waaw nañ ñu dimbale nag ñu ut ñu fuñ ñu teg waaw nit ki boo koy jëlee fenn tamit day am foo koy teg waaw loolu moo gën a rafet. waaw maa ngi nuyu ñëpp mais dañoo xëy ñun ñëpp ñu am metit parce que wax dëgg yàlla ñun ñëpp ñoo bokk fii am fi jàmm am fi salaam di daan suñ doole képp koo koo gis mu xëy di ñëw fii rek daa bàyyi njabootam bàyyi fa dépense am ñëw ñëw pour daan dooleem yóbbul am lum yóbbul njabootam ñun jigéen ñi dañoo nekk fii topp suñ góor yi nekk fii suñ papa suñ tonton yi di daan suñ doole ñun ñu topp seen ginnaaw wax dëgg yàlla di def lu rafet wax dëgg yàlla fii defuñu fi lu ñaaw xuloo xuloowuñ xeexuñu defuñu fi dara dara dara lu ñaaw fii koñ bi fii ñi fi dëkk ñëpp fii la ñuy jëndee ndékki fii la ñuy jëndee añ xaaj bi dëkk fii yëpp duñ togg añ ñëpp ñun ñoo leen di jaay añ bëri na trop ñoo leen di jaay añ ñoo leen di jaay ndékki bu timis jotee ku nekk dem dellu sa njaboot ñun ñàkk ñu luñ def suñ kër yi de te suñ borom kër yi tamit ñàkk ñu ñu jox mais toogaay si boppam moo jeex te góor kese mënul yor kër ñun ñëpp dañuy daan suñ doole pour am lu ñu yóbbu suñ njaboot ñu ngi ñaan nag ñi def lii wala ñi ko jiite ñu dimbali ñu ngir yàlla ñu dimbalee ñu ñun tamit dañoo yor famille kom ñoom ñoom bu ñu nekkee ci climatiseur ñun ñu topp ci naaj bi di dan dangi nañ seet yàlla ci li ñuy def